di ñaan yàlla nga yàgg fi lool te wér dañ waat fi ay déwén yi déwén ci barkeb Sëñ Tuubaa mbokki taalibe yi kon sëriñ bi dafa bëgg a waxtaan ak mbooloo mi su ko defee ñu toog maase déglu kuréel safinatul amaan waaye da bëgg a waxtaan ak mbooloo mi yeewi leen bu defee ñu toog maase déglu euh, kuréel safinatul amaan ay kàddoom nag Cheikh Mouhamadul Bachir Faye moom moo koy yëkkati mi nga xam ni moom moo doon def waxtaan wi léegi ak sëñ maam Cheikh Fall ak sëñ Abdul Ahad Bousso sëriñ bi waxtaan nañ ñu waxtaan wu am solo ci bennoo ak euh, topp ndigal waxtaan na waxtaan nañ ci loo xam ni buñ ko jëfandikoo mën nañoo jariñ suñu giirug dund te waxtaan wi ci biir indi na ci ay ponk yu bare bari yoo xam ni Euh, dañ koo jukkee ci biir ñaari thèmes yooyu indil ko bokki taalibe yi euh, muy waxtaan wu am solo woo xam ne euh, bëgg nañ bokki taalibe yépp bàyyi ci xel ak fi jamono toll jëfe ndigal lu am solo la bennoo itam lu am solo la sëñ Mouhamadul Bachir indi na ci lu am solo ci ak mujjantali kàddoom xamal leen ni thème bi li muy yaatu yaatu ak li muy bëri bari yépp Euh, ci yoon woowu rek nga ñu bëgg a teg muy bennoo nekk benn jàppalante te jaar ci yoon wi kon nañ maasee déglu kàddu yi sëriñ sëriñ Mortada mu sëriñ Saaliw ci kàddu yi jaarale ko ci kàddu sëñ Mouhamadul Bachir Faye asalaamaaleykum wa rahmatullahi maa ngi nuyu sama mbokki taalibe fi daje ñëpp ci turu Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Salihu Mbacke euh, kàddu yi nag euh, kàddu yi cant la ak sant yàlla sunu boroom ci njalbeen ci xéewal yu rëy yim ñu defal euh, te jaare ko ci Serigne Touba di sant yàlla tam sëriñ tuuba Cheikhul Khadim ci xéewal yi ko yàlla defal mu digle ñu santale ko ci yàlla nga xam ne moo waral jotaay bii mu mel ni tam na ko sëñ bi sàkkoo woon moom Cheikhul Khadim ci bu bis bi yegseetee nañ ko santale yàlla sunu boroom ci fésal mbegte Euh, mu waxoon ne ci ginaar ba ci giléem lu ko lu ci nit man rek euh, na ci na ko fësal sante ko yàlla santale ko yàlla ci bis bii ndax euh, yi ko ci sunu boroom defal te ku ne xam na ne ku sant ñu ya ñu dolli la yàlla sunu borom moom moo ko daale ku sant mu dolli la la in shakartum la azidannakum yamalu ala daawuda shukran wa xalilun min ibadiya shakur ku sant danaa la dolli te da ko bijji sax lu ñu noonu taw kii dafa feddali wax ji mel ni faaw rek danaa la dolli xeet yu njëkk ya ci am na ci ñoo xam ne seenu jaamu yàlla ci sant googu la ko defoon nga xam ne kon lu ñuy wax ne e, diine ñu njëkk ña kat diine la ci ñun fekk lu koy weddi ñëwut loolu dañ koy jàngale ci lislaam nga xam ne kon cant ci ci ci lislaam la bokk ca cosaan la ci tam sëñ Touba nag dimbali ñu bañ mën cee jaar ci bunt bii di ko defe ci ci ci ndigalam mu mel ni doon nañ waxtaan ci ndigal kon am nañ ci yaakaar lool ndax fi cant gi jëmmi cant gi ak ak ki ñu ko digal ak fi mu jóge ak liñ ciy séentu sëñ Mouhamadul Mourtada mii nee na mi ngi dugal wax ji foofu mu mel ni tam loolu ñu waxoon ci gilaam ci ci ginaar ba ci gileem suñ boroom am na ci jaam ñi ak taalibe yi ñoo xam ne noonu lañ koy noonu lañ koy yéenee di ko defee noonu yi eh, nga xam ne dañuy xool bu ginaar eh, ginaar la ca topp lu mel ni xar mbaa eh, mbooleem xeet yooyu ba yegg ci gileem nag ak yi ci aju ñu defandoo ko mu doon seenu cant loolu itam buñ ko doon xool ay benn bennal mel na ni lépp daje na ci kër gi daje na ci daara ji kon ak cant gu wér am na ci di jóge ci kàddu sëriñ bi loolu nag suñ ko sante woon noonu rek te dugaluñ ci lii ñuy def toog di yeetente ci diine di jàng alxuraan ak def euh, jàng xasaayit ak def lu baax ak wax day xaw a nuru ne euh, day xaw a nuru ak ak ak ak tiitaru walla mu nuru lu mel nii ak rëy wala ak wanewu moo tax yooyu ñu ko raxe moom moo ñuy del delloo si ñu mu daal di doon ak cant nga xam nga li ñu koy waxee ci wolof cant day sant sant day xaw a nuru ak yàq dañoo xaw nuroo te te duñ benn moo tax yooyu ñu ko dugalante boobu ñu ci def moom moo ñuy indiwaat saa su ne suñu xol di jàpp ne dañuy sant innamal amalu bi niyaati te jëf jëpp jëf yëpp ci lislaam ci yéene la ko suñu borom tënk kon euh, sëñ bi mi ngi rafetlu euh, seen taxawaay ak seen doxin di leen euh, fedd leen laxasaay ci ñun ñëpp ñu gën a góorlu xam ne liggéey bi liggéey bu yaatu la bu baree bari boo xam ne des na lu baree bari naam am na yuñ ci jot a def mooy yii ñuy def nii waaye ñun ñëpp nañu bokk ànd xalaat ne liggéey bi des na lu baree bari nañu jël sunu bët teg ko fu sori moom nag dana ànd ak ñun di ñu gindi di ñu wan aw yoon te fépp fu ci tollu danañ dana ñëpp danañ ko yëg su waree waxtam tam dana wax su waree jëf dana jëf ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yi ci kër yi ñoom ci seen biir nañu def ci seen xel ne kii ñu àndal fa sëñ bi tegoon tànkam di xeeñtu yu baax ya ak diine moom fa la teg tànkam te bëgg mbooloo mi tam ñu xam loolu teg fa seen tànk di ci nab na bi di ci góor góorlu seen kémtu lay kàttan moo tax boo xoolee li ëpp ci eh, ay waxam day soññee ci bennoo liñ doon waxtaane tey nañu bennoo ndax eh, ñu bokk eh, fuñ jëm dañuy nuroo aw doxin te loolu waxtaan ak yëgoo moo koy def nañuy dimbalante ci sunu biir da koy wax lu baree bari dimbalante nag lu yaatu la ku ne lam man te tey ka ca des tële ko mën na koo dimbalee foofa doon nañ ci joxe ay misaal ci métier yi ci ñan ne ca marché ba di commerce kenn ku ci nekk bu jotul rek mu xool euh, ñi ñi ñi ñi jot walla ñu gën koo miin fa mu ne ñu jàpp ci loxoom xëcc ko ndax ñoom ñoo bokk lu ñuy def ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk fu ñuy sowi ci wàllu xam-xam bi noonu fexe ba daare itam am ay kuréel yi xam-xam Eh, ci biir dimbalante lay dugg ñi nga xam ne eh, eh, ñoo tane ñi ci des di jàppale ñi ci des loolu ci biir liggéey bi la te loolu lu ñor sëñ bi la rawatina ci wàllu xam-xam lu ko ñor la ndax nit ki bu bëggee def lu baax bëgg a jaamu yàlla bëgg xeeñtu jeexitali sëriñ Tuubaa ci ak xam rek la ko mën a def bu dee làmbatu day jafe te xam jombuluwul ndax lu jàppandi la téere yi ñi ngi fi ñi ñi ko mën a jàngale ñi ngi fi organisation rek la laaj bu ñu organiser woo lu mu gàtt-gàtt e, nit ki dana xam lu yees lu mu xamutoon kon loolu nañ ko bàyyi xel mu bokk ci doxalin yi ñu xam ne tam ci ni mu waxee sëñ bi am na ay projet yoo xam ne e, ñi ngi fi nit ñi tam e, taalibe yi nañu xalaat nañu xalaat ci luy yokk liggéey bi mu bañ a yem rekk ci njàng mi ak ñëw fi ziyaare ak dellu waaye nañu xalaat ne liggéey bi des na lu bëree bari xalaat nag moom ñaar la moom sëñ bi mën naa xalaat tege ci aw yoon jéem teg ñu ci aw yoon ñun tam mën nañoo xalaat lu baax ci biir daara yi yaxal ko bind ko ñëw ne ko lii lañ xalaatoon bu fekkee lu jubla luñ mën a def moom moom dana ko xam su fekkee lu am néggandiku dana ko xam bu fekkee lu jubut dana ko xam ndax looloo tax ñu ànd ak moom jiital ko te yàlla ko jiital kon buñ ko jiitalee loolu dogal su dogalu sunu boroom la kon kon noonu lañuy ñuy àndi ak moom kon nañu xalaat loolu te te te soril sunu gis daal rawatina ci li nga xam ne mooy yóbbu liggéey bi fu gën a sori fii mu nekk euh, mu wax ne bu loolu weesoo tam euh, bu yewee baa ngi nii ci ku am ay yitte euh, euh, bëgg koo bëgg caa dem euh, waxoon na tam njëkk loolu sax ñu bàyyi xel daara yi daara yi daara yi ci liggéey bi la bokk fu mel ni daara yi xel koom ak yi daara yëpp rek njàpp na la xel koom ak ci daara yi nañ ko bàyyi xel ci liggéey bi la bokk jéem a gëstu yan anam lañ ci mën a def doxe ko ba e, yar baag njàng maag fuñ ci mën a dugal sunu loxo ba lépp gën a jàppandi mel ni mu ko bëggee moom li ci daara yi xalaat mën nañ ko koo wax fexe ba ba mu jot ci xalaat yooyu bu dee luñ ci luñ ciy def dana ko def comme noonu moo ko waxee léegi bu loolu weesoo nag e, day ñaan gaa ngi e, dina ko def ku ci am ay yitte tam ndax bis bi xat na ak jamono ji ni mu mel ak lim laaj nga mën caa dellu Euh, kon bu ko xësee def rek ñu xam ne yewee yewee baa ngoogu euh, yewee yewee baa ngoogu loolu xam naa ne mooy kàddu yi sëñ bi ci sama euh, tënk ak gàttañlu ak am yéene rek bëgg koo waxee nu mu gën a rafete waaye xam naa ne moom neexut a wuutu ci loolu ndax benn baat mën naa firi lu bëree bëree bëri ji kon ñu ngi sant bu baax di gërëm jërë ngeen jëf salaamaaleykum bu dee sëñ maam Cheikh daa am lu ci wax mbaa sëñ jiili ngir mu gën a jàppandi itam bisimilah. mat na sëkk mat na sëkk xanaa na ñëpp maase tàll loxo yi rek sëriñ bi ñaan dañ defe ko noonu ko waxee muy ñaanuk yawiku bi amiin